ràmbalaat wuti saalum di bàkku tey maaj fu mu féeteeti mën na jug waaj ne moom fu def ma ab daaj bismillaahi ma war naaru góoru njuuj njaaj ràmbalaat wuti saalum di bismillaahi ma war naaru góoru njuuj njaaj ràmbalaat wuti saalum di bàkku tey maaj kuy jigéen jegesil tey ma tagg seen njiit jii jigéen fu mu taa daagoo ca péy ba kuy jigéen jegesil tey ma tagg seen njiit jii jigéen fu mu daagoo ca péy ba tey ma sulli jaroolem ci réewi soodaan ay ndamam dafa gàccaal rijaali diiwaan soxna jaara sa tool bii nga bay dama yéem fam nga sàq yi feesal ba gor ñi faf luum yitte laam bari jom gor la am dalib xaas ndottalaay li ma yéem raw nga doo fi am maas at ya néew na ci at te jëf ja rëy lool bay nga sas wu ne ŋalit ba ñu ba ñoo ngi góob mbool at ya néew na ci saahir te jëf ja rëy lool bay nga sas wu ne ŋalit ba ñoo ngi bon ngool coolu coolu yawa yaana cas la doon jaay fay njëgam ne ko dankum indil ko say gaay moo waral bawal ak saalum ak kajoor siin ñoo ngi raam fi soroon mboor sigil ñu lay seen kajoor siin ñoo ngi raam fi soroon mbaar sigil ñu lay seen tey ma joobi jikkoom ndaxte ngeen roy ci moom yàlla mooy ki ko jagleel ba mës ta jëf juum mat ga moo waraloon mësta xëy di fay faat waxtu fu mu jot jóg na julli xaat-xaat tab gu rëy ga fa moom raw neel kaar mës na jëf lu ko gàccaal kilee di jàmbaar fonk diine ba tax mës na tooñ boroomam kum waxal nga ne ëskay du may soxna jaara rëyul siisu loon xañaanul moo waral li mu am walba àgg biir mbul yiw na yaatu yéwén yeewu yam ca néegam géer la gor la di gar yiw na yaatu yéwén yeewu yam ca néegam géer la gor gàlliwul ca xeetam teggi nay la mu fab def ko gaal ga muy laaw teer tefes gañu naa kersa cir na waa mbaaw du jànnee te du boddee du daw ku koy laaj weg na mag yëre moo ndaw di jëf ker ak naaj borom kersa la woon yar ba lay dëgërloo tooñ itam lu mu tartar du fab di delloo nattu it lu mu rëy rëy mu muñ ne inna lil ilaahi wa inna ilayhi gëm naa nattu it lu mu rëy rëy mu muñ ne inna lil ilaahi wa inna ilayhi gëm naa jub nga jekk nga jag jàggi noon yi tër daan loo waxit ñu ne maalum bi isni rahman yow sa yéene la buur fay ba jox la maam daam xëy ma it ba mu sottee loon borom saam yow la fay yow sa yéene la buur fay ba jox la maam daam xëy ma ba mu sottee loon borom saam gor ña yow ca njël yow nga jànqaraw leen baarakaal la bu soo mas nga far nga séen leen ñépp a mos ci sa may yii jigéen aku góor xew fi yow di la sonnal di xanju sa mboor taar bu réy bi nga sàlloo sewal nga lay laa géeji yiw gi nga yor géeji yiw gi nga yor du se wal na bay laa yaari wet yi la gaw ñépp a set weles maam mbusoo bee ngi le mbàkkee ngi ñoo di say maam banu mam ma xaram leer ga moo la sol xaal ngay bëngeer bana cas mbuuti kun di sàbbaal li alimun nga di xaafis bu dee fi war maal kàng fóore nga maam yaay boroomi laxwaal fortuwoo li nga xam yaa ko jëf ñu fay laa jog nga jekk nga jag moo waral ma way laa baatinam ba mu yor téewutoon mu def jaam buy jëfal sëriñam daa woyof lu tey raam ndam la buur digga woon yaa ko saytu def kaam yaa fi gën ku ña doom tin ñu def ñu sa mbaam diir nga njong la ba jam diir nga njong la ba jam jàggi noon ji diir nga njong la ba jam ñaag gi ñaag raw leen kenn tëkkaalewulaak nga leen diir nga nga njong la ba ba jam ñaag gi ñaag ba raw leen kenn tëkkaalewulaak jeegi faas nga leen sa di góor yi nga am raw na góori day maan muntaxaab nu basiir ab ajam la buy daan ndab li neex na te yaa waaju xiif ñëwal gaaw cam sa mos ci bu faatoo naay mi lay naaw sukku nan fi sukku nan di raamal ba ñàkk ay woom ngir sa doo jox lëf lu jéggi am koom yaay wurus ku la mooy per la maa yaay wurus ku la mooy ab përam la xam naa maa la nas caqi baat moo taxit gërëm na mam astawaaloo jaajëfal la war naa lim yaay ki ko neem ku mas ne neex naa kon jigéen ñi la roy leen ci soxna jaaraa ndax te ngeen amee doom yi ba woo fadaara soxna jaara buso soxna jaara buso boo defoon ñi jéggi kon ëllëg bu ñu faatoo alak ni naa ji soxna jaara sa ndam yi xëjul ci aw fooy teg ca man mënuma way yambar di am tooy kon ma xat mu ta ñaan say ngërëm nga sol ma may ma bàyyi rek akum koom wérit nga jox ma salaatan wasalaam man na dal yonen ba